ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bi seen émission gox bi ci dibéer gi di dalal kii di sax di wuyu si turu Mariane Alice Gomis di urbaniste di candidate ca mairie bu Gueule Tapée Fass Colobane ponk yi ñu war a waxtaanee bokk na ci élection locale yi ñu jàpp ko ci weeru janvier atum 2022 ak ban programme la amee ngir indi saafara ci jafe-jafe yi nga xam ni askan ba fay yeewee ñoo ngi koy jànkonteel naka noonu sax ci wàllu ambition bi ak jigéen ñi euh, ñoom nag pour woon nekk maire ci yenn ci communes yi daanaka sax dafa leen wan ginnaaw lan moo sabab li ni mel ak ban solution la ci préconiser ki nekk ci kàddu gi maas Thiam ci xarale gi Adama Diallo ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bi euh, Mariane Alice gomise ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci rajo Rewmi FM 97.5. Mass Thiam maa ngi lay fay. Mhm. Euh, di la remercier ci dalal mi may dalal tey ci rajo réew mi FM. Mhm. di kontaan trop di nuyu seen euh, auditeurs yi. Mhm. waa di nuyu sama waa gox spécialement ñi nga xam ne ñoo gën a tax ma ñëw fii. pour waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne yéene bi ma am ci commune bi. Mhm. mu nekk commune bu gël Gueule Tapée face Colobane comme niñ koy faral di defee sedd gi nag moo di émission gox bi ku fi ñëw da ngay lay bàyyi nga présenté gël Tapée face Colobane fan la nekk ci Ndakaaru ben Gueule Tapée Fass Colobane euh, dafa nekk ci xoolu ndakaaru mhm. boo xoolee que département Dakar dix-neuf communes ñoo fi am mhm. euh, bu fekkee ci wàllu politique euh, bu ñu ko waxee ci parti socialiste mhm. commune Gueule Tapée Fass Colobane dafay nekk troisième coordination PS kon nga xam ne sori ñu fenn ñu ngi diggante Médina ak Point E jàmbaarloog géej jàkkaarloog géej bi mu nekk commune boo xam ne képp koy dem ndakaaru boo fa jaar boo fa jaarulee doo yegg ca ndakaaru bu neexee yàlla mu nekk commune bu nekk ci xolu ndakaaru junj nga ko ci say kàddu mais seetlu gi moo di buñ nee gël Tapée Fass Colobane mu nekk Dakar waaye daanaka jafe-jafe fa nekk loolu bëri na lool yan nga ñu si mën a limal. ah man bi ma siy commencé mooy bi nga xam ne moo nekk ci xolu waa commune bi yëpp mooy assainissement. Mhm. waa assainissement dafa nekk loo xam ne tamit euh, du compétence transférée parce que mm-hmm. ba ñuy wax gox yi mm-hmm. dañ ko tënk ci ay trans ay compétence transférée mm-hmm. mais boo seetee suñu commune lu mu tëddee li fa gën a metti li fa gën a metti ci li metti population yi mooy assainissement. Mhm. donc looloo waral tey lépp dana dara doxu fa. Mhm. ndaxte yow ma amaana sa assainissement bu baaxulee rek. Mhm. sa dëkkuwaay mënul mel noonu. mu nekk lu metti euh, ñu dëkk ci gox ba ba léegi nee nañu sax compétence waratu leen tënk parce que loolu dañ ko war a saafaraal. mais ku wax euh, assainissement nga wax ni compétence euh, transférée la mais gis nañ ni maire démembrement état la est-ce que maire ba di Ousmane Ndoye mu jiite Gueule Tapée Fass Colobane moo jéego lëngoo ci ak population bi. bu ci tegee ay jéego tamit dañuy dañuy wax ne que euh, jéego yi neew nañu. Mhm. parce que commune bu mel noonu bu ñu tawee euh, ñaari kano sëkk ñu sekk ñu. Mhm. saa yu tawee ñu nekk ci ay jafe-jafe. Mhm. kenn dootul nelaw kenn dootul lekk da ngay gis ñoo xam ne dañuy taaj seen boolu añ ci biir ndox. donc ma nekk ma ne commune boo xam ne que ay ñaari canaux ñoo ko ñoo ko sekk. benn bi nekk eau use benn bi nekk eau pluviale est-ce tamit loolu. méngoo na ak euh, commune bu mel noonu. Mm-hmm. boo xam ne que loolu yëpp moo fa nekk te mënuñu mm-hmm. saafaraal méttit boobu nga xam ne moo nekk moo sax ci xolu. Mm-hmm. xolu population nekk méttit bi gën a li gën a métti ci population boobu. waaw looloo tax ñuy ñaax nag. képp ku fi ñëw ak ku fiy toog. parce que yow euh, sànq da nga ne compétence du compétence transférée mais c'est pas parce que du tant compétence transférée que waruñ ci def ay jéego. parce que tey àdduna dafa dox li ci dox mooy tey. képp kuy wax da ngay wax wàllu cadre de vie da ngay wax wàllu environnement waa wax wàllu euh, dëkkuwaay. Mhm. kon dëkkuwaay mënut a mënut a dox tànk li fa li ko laal ci suuf. Mhm. muy assainissement bi doxul. Mhm. kon boog dañuy ñaax ku nekk. ñu xool naka lañ ko mën a saafaralee looloo tax ñu ñu taxaw teem ne tey ñun compétence dootuñu ténk dañuy xool ak ndawu gox bi ak ñu dëkk ci gox bi naka lañuy mun pour ay jéego ci euh, ci euh, wàllum assainissement boobu. Mhm. moo ne de am na sax kanaal bu fa nekk ñu duppeek kanaal 4 loolu est-ce que euh, est-ce que soulagé na benn yoon souffrance population bi wala canal bi moo méngoowul ak jamono. Euh, du ma ne kanaal bi moo méngoowul ak jamono parce que boo gisee nag kanaal dafa laaj entretien. Mhm. dafa laaj curage te suñu kanaal boobu dama koy dañ koy dañ koy ñeme wax. Mhm. dafa am loo xam ne que préciser naa ko sànq. ñaari canaux la benn canal bi dafa nekk eau usée mhm. mooy kanaal bi dem Soumbédioune mhm. beneen bi nekk eau pluviale mhm. waaye dafa am nag benn instant dañu dem ba ñaari canal yi euh, ñaari canaux yi dañ leen dañ leen a jaxase am na loo xam ne que ay branchement yoo xam ne que waruñu woon dem ci canal bi te dañ fay dem loolu nekk problème bu ngande sax dégg naa fi ay ay ay ay ay candidats yuy wax ay euh, loolu sax du du ren ji lañ ko wax ah mos naa fi ñu naan dañuy aménager canal boobu pour def ko centre commercial mais li nga xam ne dafa war ak accueillir ndoxum taw mhm. ndoxum taw bi rek dematu fa mu am ay kër yoo xam ne dañ ko fa branché mu andi problème bu rëy mhm. est-ce ñu fa defee centre commercial est-ce que gëm ngeen ne que loolu dina dem mhm. te nga xam ne que boo demee ci yeneen dëkk yi nga xam ne dañu am canal yoo xam ne que dañu am canal buy évacuer ndox ndox bi yenn saay xam nga mbirum yàlla kenn du ko maîtriser taw taw bi kenn mënul xam pluviométrie Dakar nu muy demee bés bu ëppee ba déborder naka lañ koy defee. Mhm. kon gëm naa ni kanaal boobu am na yeneen jéego yu ñu ci war a def lu dul ay di ko aménager ci yeneen. Euh, ana koppar yi état bu Sénégal dugaloon ci wàllu assainissement bi ci atum 2019 ministre de l'eau et de l'assainissement Serigne Mbaye Thiam moom moo yem njaboote woon li ni mel mu toll ci ñetti téeméeri milliards ak euh, ñetti téeméeri millions ak lu teg ñoo wàllu assainissement boobu la sax liggéey ba amul benn impact ci wàllu assainissement bi cadre de bi wala dañoo ñëw rek wax daal di dem. nee nañu koppar boobu dugal nañ ko de waaye ñun waa Gueule Tapée Fass Colobane gisuñu ci suñu bopp. Mhm. parce que na canal ba meloon euh, eaux usées yi. Mhm. noonu la mel ba léegi si c'est pas pire parce que entre temps am na yoo xam ne daf ci xew ba nit yi ñëw envahir euh, canalu Soumbédioune bi. Mhm. donc eaux usées yi nga xam ne que ñu ngay déversé wu ci canal 4 euh, bi. ñu ngi fa ba léegi. kon xaalis bañ fa injecté gëm naa ne yegg seegul ci suñu commune ñu koy mettit lool nag ndaxte gëm naa ne bu fa andi woon tuuti jéego rek xëy na yenn kër yi dinañu féex. alors kon fan la jafe-jafe wi nekk ba xaalis bi ñu yëkkati teg ko ci table bi ngir mën a dafa indi ay solution ci wàllu assainissement bi te ba léegi forage daal di xëddeen fan la jafe-jafe bi nekk kon. est que du du ci problème est-ce que du problème bi c'est pas administratif. Mm parce que li nga xam ne que danga ne dangay defar population yi. population yi nekk loo xam ne que c'est une population locale mhm. ñoo xam lu leen di metti bu fekkee nekk lu leen di metti tey du compétence transférée ñu war a jël kenn ku nekk ci état bi war a dérouler programme pour kii. Mhm. amaana bu jegewul population yi munul xam fuy metti kon concertation maanaam amu fi ba ñuy defar li ni mel ñëwuñu waxtaan ak askan ba fay yeewoo ngir mën a jëmmal boobu le projet. ah gisuñ ko fa de concertation bi moom ñun boolewuñ ko si. Mhm. boolewuñ ñu si. Mhm. parce que bu ñu si boole woon dinañ ko wax parce que yenn saa yi tamit dañuy ñëw ay def yoo xam ne concertation yoo xam ne que ñañ fay invité du ñu représenter population bi. kon dafay dafay normal euh, retour bi du am benn impact ci population bi. parce que boo jegee population bi waxtaan ak ñoom ñoom xam nañu lu ñu metti lu mu bon bon bon bon xam nañ fu ñu war a commencer. Mhm. xëy na yoruñu xaalis bi te lu mu bon bon bon ci gox am na ay compétences yoo xam ne que bu ñu leen invité parce que depuis acte trois de la décentralisation dañuy wax ay démarches participatives et euh, participatives et inclusives. Mhm. donc bu démarche bi participative woon inclusive gëm naa ne ñu bëri nañ ko saafaraal. Mhm. kon man may dëggalaat ne que démarche bi ba tey des na. en tant que acteur bi yëngu wala sax actrice bi yëngu ci wàllu développement ak wàllu politique yéen yan jéego ngeen ci def est-ce que ngeen. ah ñun chaque fois ci alerte lañu dëkk. ci alerte lañu dëkk parce que man dara weesuwul amoon nañ fi ay fan ay ay dama doon ne. gox bu nekk bu kenn ku nekk doon def li nga mën rek. Mhm. dinañ ci dinañ ci génn. Mhm. fan yale amoon nañ fi benn directeur boo xam ne suñu suñu gox la la bokk. Mhm. donc xëy na commencé na ay affaire mais comme je dis rek consertation bi bu yeggulee ñun mënuñ ko mënuñ ci def lu bëri. concertation bi nit yi bu ñu waxtaaneelulee li nit ñuy defaral ñun mënuñ ci xam lu bëri. parce que dafay dafay ànd. nga ñëw ci nit ki nga xam ne moom moo am jàngoro nga waxtaan ak moom. ba mu ne la nii lañ ko mën a defee ndax mënuñ ko defee nii. parce que boo ñëwee ak sa sa xel rek ñëw teg ko. amaana fa nga koy commencé sax mënul am impact ci population bi. Mhm. donc looloo tax ñu koy jooytu ba léegi te taxaw nag fi mu toll nii nee nañ dañu bañ jooytu bi léegi dañoo fas yéene jóg ñun ñëpp lëkkaloo àndandoo saafaraal li ñuy metti mhm. ndaxte dafa jot. Mhm. bu weesuwul sax dafa jot. parce que cadre vie dafa loo xam ne que dafa am njëriñ. ci gox loolu bu doxulee rek leneen ni moom xaw ma naka lay def ba dox. est-ce jotul par exemple ñu xool naka la ñuy def ba indi ci saafara mu doon solution définitive boo ko defee at bu ne wala sax nawet bi bu jotee ngeen bañ a dund li ni mel. ah at bu nekk loolu lañ ñuy loolu lañ ñuy dig ndaxte boo waxee sax nee nañu parce que xam nga campagne en euh, fait politique bi moo tëddee noonu mm-hmm. bu ñu demee ba jub si si ay élection mm-hmm. da ngay gis activisme laa koy tuddee mm-hmm. parce que tey li dal waa Gueule Tapée Fass Colobane defe naa moo dal waa Médina mais gëm naa ne que benn instant waa Médina xëy na tamit am na fu ñu tanee tuuti. ndaxte am na yoo xam ne que def nañ ko ba ndox bi parce que boo xoolee ci pavage bi ak yeneen ak yeneen am na loo xam ne que tey bu ndox bi ñëwee sax am nañu fu ñu jaar mais ñun ca Fass ba ñu dëkk loolu amu fa nee nañu nag état bi jagleel nañu benn programme boo xam ne commencé nañ ko commencé nañ ko la ñu wax mm. mais ba tey lañ ñu coy wax moo ñu leerul ba ñun ñii ci fas kanaal bi gisaguñu benn jéego bu ñu entreprendre bu ne tey canalu Soumbédioune bi nga xam ne tey man je trouve que si une bombe à retardement mm. ñu wax ñu ci anam ñu leer lan lañ ci fas yéene def mm-hmm. mais par exemple travaux yi Ousmane Ndoye entamé woon wala sax état bu Sénégal ci côté Gueule Tapée gisoon nañ ni foofu wàllu assainissement bi dafa xawoon sooxe mooy fàttali ko sax man mos naa fa dem def reportage population bi jooytu ko mais xool nañ bañ ci tegee ay weer kepp gis nañ ni solution am na si est-ce que newul li nga nekk wala sax kujje ci wàllu politique bi moo tax ngay niiyee lépp. non man niiwuma lépp nee naa la am na lu ñuy commencer mais dafa doyul. Mhm. dafa am foo xam ne dama buñ fa tolloo. waratul nekk loo xam ne dañ koy jéem dañ ko war a saafaraal mm-hmm. yow fa nga doon wax ca gël tàppe mm-hmm. boo demee ci côté canal bi noonu mm-hmm. yow ump la umpule wala ne que marché bi dañ ko doj waa ña nekkoon ca marché ba tey fu ñu nekk yow mi ngi fay doxantu ña fa nekkoon ca marché ba fu ñu ne. Ah, daanaka dañuy lal ci tali bi rek wala ñu lal ci trottoir bi. wala booy bu ñu fa lalee rek ñu ñëw jël si jëlee leen fa. ci kaw canal bi. Mhm. non non ci kaw canal bi la ñu installé kon gëj nga fa. Mhm. na dem xool ci kaw canal bi la fa nekk. Mhm. am na loo xam ne dañ ko fa installé fu mu nekk nii dañuy ne installation provisoire. mais am gis nga tabax boo koy tabax dafa am charge yoo xam ne que antanu ko. parce que ja bañ koy tabax. prévoiruñ ko woon. Mhm. donc boo xëyee ne danga am benn problème boo bëgg a régler déplacer problème bi ñëw andi ko ci benn kanaal boo xam ne que charge ba nga fay teg amaana c'était pas prévu pour ça. Mhm. loolu lan la mën a jur. kon ñu delluwaat ci bombe à retardement rek bañuñu. Mhm. dañu ne ba ñuy saafara nañ ñu defar loo xam ne que daf ñuy yóbbu ci kanam. mais du loo xam ne que daf ñuy andil yeneen problème. Euh, junj nga ko say kàddu nga wax ko ci wàllu marché ku wax Colobane wax ay marché ndax gis nañ marché yi nu mu fa bëree lool euh, juñu nga ko nga ni am benn marché bu nekk ca Gueule Tapée dañ ko toj ñu délogé ñu fay jaay léegi foofu liggéey bi fan la toll wala demu demugul fenn ah liggéey bi yow boo bu fekkee nekk yaa ngi dëkk ndakaaru yaa ngi yeewoo ndakaaru ñëpp xam na léegi li banlieue la <laughs> waaw banlieue ba tey soriwul parce que ñun boo xoolee boo xool ñu ndakaaru lañu ñu dëkk de mais géographiquement rek lañ fi dëkk mhm. ndaxte dara dara xewu fa parce que boo demee sikanaal boobu ma lay wax boo hmm. demee foofu di nga gis ni ñu dëkkoo ak euh, xeet yi ak leneen ak leneen. Hmm. donc marché bi tey ko kii bi dañ ko bloqué travaux yi dañ ko bloqué. lu tax ñu bloqué ko. ah parce que dafa am loo xam ne que population bi dañu dañu dañu yaakaar ne que xëy na lañ leen wax ak la ñu bëgg a def xëy na méngoowul. comme par exemple. comme par exemple. Mhm. ci contrat yi ak nañ koy defee ak mhm. euh, lan moo ko lan ak euh, lan la mairie bi di am ak mhm. lan la nit yi di ko di ko mu nekk loo xam ne tey ñëpp dañu dese ne nañ koy teg ci suuf ba leeral ko. mu gën a leer. Ah, leeral ko dama bëgg nga leeral ko fii ci rajo réew Rewmi FM 97.5 pour mu leer man mi sama bopp man mi lay déglu lan mooy ñuul ci soow mi bañ arrêté liggéey bi. mais ni ma la ko waxee waa population Gueule Tapée ñoo jóg. nee nañu marché bi. Mhm. contrat bi xam nga lan moo yàq Sénégal. contrat bi daa am lu si lëndëm. voilà dafa am lu leen si lëndëm loo xam ne que dalul seen xel. Mhm. looloo waral tey ñu ne loolu waru fa nekk. Mhm. tànk loolu dalul seen xel. te dama leen dama koy rafetlu démarche bi parce que ñoom ñoo fa dëkk. xam nga tey dañu ne. local kon localité bu nekk moo xam la mu soxla ak lu muy kii yow luñ la teg teg ci ci euh, ci mairie ba. da nga am pour concerter wu ak population yi. Mhm. parce que lu dernier moo revient aux populations. Mhm. bu ma ko seetaa bu ñu ko xoolee noonu parce que ñoo fay dund. Mhm. xam nga nit ki boo koy defaral day fekk tamit mu neex ko. bu ko neexee defar bi day gën a yomb. bu ko neexulee tamit chaque fois il faut ñuy consulter parce que bu ñu consulter war loolu mooy andi problème yu blocage yi. marché bi bu ñu ko defalee ñu population bi moo tax pourquoi pas population bi war a jéem a xool ñu arrêté affaire bi alors que population moo tax. Euh, kilifa yi faree ci boobu les localités def li ni mel mais marché kolo euh, ku wax Colobane gël Tapée Fass am na beneen marché bu faree ca Colobane waaye nag dañoo seetlu ni benn adjoint maire bu fas gël Tapée moom dañ ko joxar bi woon ji baaraamu tuuma ni dafa luubal ay kanting bañ a euh, teg ko loxo loolee fan la coow li toll. ah man coow boobu duma ci dugg parce que comme ni ma koy waxee. Mhm. xam nga liggéey bi dafa am fu ñu ko war a teg. Mhm. bu ñu ko tegulee yoon loolu si yëfu yoon la nekk. Mhm. kon bu fekkee ne que loolu dafa am. Mhm. gëm naa ne yoon dinañu ci leeral. Mhm. waaw parce que kañ fa tëye maa ngi ñaan yàlla bu fekkee ne defu ko. mu génn ci ci jàmm ak salaam. mais dafa jot tey ñoo xam ne que alalu mbooloo kuñ ko dénk. dafa am lu la ci war. alalu mbooloo kuñ ko dénk dafa am foo ko war a teg. alalu mbooloo kuñ ko dénk. danga am ay compte yoo xam ne da nga ko war a rendre population yi. te teg ko ci muy leer rek. ndaxte lu mu yàgg yàgg yàgg. li xewoon démb mënatul xew tey. Mhm. ndaxte tey communication dafa dox. tey ñëpp am nañu rajo tey ñëpp am nañu connexion. Mhm. kon am na loo xam am naa ne lu ñu doon def avant bu ñu ko defee tey fu mu toll nii. mënatul mhm. a mënatul a dox. ba tey dañuy des ci wàllu marché yi ndax marché lu am solo la ci dëkkuwaay marché Colobane seetlu gi moo ni daanaka méngowul ak jamono ndax nit ñi ma yenn ci commercant yi dañuy lal ci trottoir yi ñiy lal ci rond point bi. ndax est que par exemple ñi kilifa yi faree ci bopp localité yi ñoom nas nañ ci ay pexe yow en tant que population yow en tant que yow nga yeewoo ca Gueule Tapée Fass Colobane naka nga gisee li ni mel. boobu dama ciy sawara tontu parce que barki démboo Ndiaye rek la ñu dem Colobane. Mhm. mais ci ndaje bañ fa am parce que ñun suñu démarche tey mooy dem ci population yi waxtaan ak ñoom. parce que dañoo pare ci ay indi ay projet teg. Mhm. dañu ne li fi ne dañ ko war a saafaraal. Mhm. te ba ñu demee Colobane seen waxtaan yëpp ci marché bi la nekk. Mhm. boo demee ba dëkk sa kër. Mhm. nga ne tey sax pour nga wuyu téléphone il faut nga dem làkku ci si benn néeg pour tontu est-ce que loolu normal na. Mhm. kon dafa nekk loo xam ne dañ ko war a waxtaanee. te may wax toujours rek nekkuma fi pour naan état bi la wala du état bi la ma wax kolobaan lay waxaat tey dafa am loo xam ne suñu taxawaay la. ñun suñu taxawaay la ñun ñu fa dëkk ci gox bi. parce que loo wax kii bi am na ñoo xam ne que ay borom kër a leen luwee. tey dama koy dama koy wax am na loo xam ne xat-xat bi fi nekk. Mhm. ñun ci suñu bopp ñun ñu dëkk ci gox ba am nañ fi part de responsabilité. Mhm. parce que ña ñëw luwe ca gox ba xëy na ñu ngi ci marché bi mais ña ñëw lal ci trottoir ba ci buntu këru jàmbur amaana xëy na dañuy fay jàmbur. Mhm. donc loolu yëpp dañ ko war a waxtaanee. xool parce que ku nekk da nga war a jël sa responsabilité. parce que dafay yomb trop ñu naan diw a ko def wala diw defu ko ñun lan moo si suñu part de responsabilité comme dañ fa yegg fu mu toll nii nag dañu ne ñun suñu part de responsabilité la bëgg a jël saafaral ko ba mu méngoog li ñu bëgg ci suñu gox. Mm-hmm. mun na mu doon lu dina jafe lool ndax Colobane ak anam bu mu mel ak nu mu xayee dee Eh, ci wàllu installation anarchique bi dëkkuwaay bi ak ña fa population bu fa dëkk ak ña fa nekk di jaay naka ngeen di dundee li ni mel xam naa loolu metti na lool. mais jafe boobu moo tax ñu koy waxtaane mm-hmm. parce que wax naa la ko ci njalbee nee naa la population yi ci boppam man dem naa gox bu nekk dem waxtaani mais bu kolobaan bi moom marché bi rek la ñuy wax. Mm-hmm. te dafa am loo xam ne dañ koy ñaawlu. Mm-hmm. nee nañu tey budget commune bi. Mhm. li fay génn ci xaalis ci ci Colobane. Mhm. ñoom nee nañu gëm nañ ne que waru Colobane warul woon mel noonu. Mhm. mais ni ma leen ko waxee tamit la fay gën génn ci xaalis xëy na looloo tax ba dëkkuwaay bi mel noonu. est-ce que jotul tamit ñun ñu xoolaat suñu bopp. parce que ka cay luwe te nga xam ne que da nga encombré wala ka nga xam ne marché bi méngootul ak jamono mais dañoo war a dox dox defaraat marché ñu méngoog jamono. jamono dafa dox. te marché mënut a ñàkk que comme on dit am nañu marché bi mais amuñu avantage bi naataango boo xam ne que fa kenn koo xam ne que maire la. Mhm. dafa doon ne sama commune aw fa dara parce que aw ma marché. kon bu ma dégloo loolu man damay daal di frustré parce que bu dee sama commune Gueule Tapée Fass Colobane du benn marché laa am ñetti marché la ñu am ak marché hebdomadaire muy ñeent. Mhm. kon tey nag am na yenn problème yoo xam ne que waruñ ko waruñ ko rencontrer waruñ ko waruñ ko am ci gox bi. Mhm. mais day fekk tamit waxtaan day neex borom kër. kon dafay fekk tamit ñu fa nekk ñu nangu ñun ñëpp nekk am na loo xam ne que am nañ ci wàll am nañ ci taxawaay buñ ci war a def. daanaka maire yu bëri ñoo marché yi lu tax duñ ci nangoo sax jël yenn mesures yi koppar yi la ñuy jiital ndax xaalis ba fay tukkee mën a dugg ci keesu boppu maire bi. ah loolu lu leer la nee nañ la man loo dañ ciy ñeme. nee nañ la gox bu am xaalis dinay am marché. Mhm. gox bu am xaalis day am gare routière. Mhm. gox bu am xaalis day am cantine. Mhm. mais dafa am ay maire yoo xam ne dañu bañ a cantiniser seen gox. nee na xaalis jaralu leen ko ndax am cadre de vie. waaw bu fekkee ne rek ñun tamit dañoo dëkk Gueule Tapée Fass Colobane loolu yëpp nekk ci suñu gox yàq suñu cadre de vie dañu tere ñu dund dañu tere ñu def leneen waa léegi nag lan mooy problème bi ba am na yenn soxla yoo xam ne mënuñ ko fi faj gox bi. parce que tey bu ñu ma ne woon ne que xaalis ba fay génn tey moo war a tax Euh, assainissement kenn décentralisé ko xëy na bu ñu jàppee tey nakat lii bu ñu ko dugalee atum ren ji dugalaat ko domaine mun nañ ko jël dugal ko ci assainissement am ndax mu baax parce que lu nekk rek da ngay jaf dara bàyyi dara mhm. da ngay jàpp dara bàyyi dara pour mun a def leneen mhm. ku wax euh, Fass Gueule Tapée Colobane wax yoon yi daanaka yoon yi moom dafa xat lool pour oto jàll fa sax a ñaari oto loolu yu jafe la lool léegi loolu naka la ñuy def ba indi jooye ni li ni mel mooy encombrement bu tey dañuy ne marché yi dañu encombré mais ñun tamit borom kër yi dañuy encombré. Mhm. man urbaniste laa. Mhm. damay saytu mbayu mbirum tabax. Mhm. mais boo gisee dëkkuwaay léegi lu tax mu xat. xam nga assainissement nee nañu assainissement Dakar à l'époque c'était pas prévu pour autant d'habitants. xaw ma deux wala trois millions d'habitants la ñu prévoiroon ci assainissement bi. réseau bi màgget na léegi de juróomi million lañ xaw voilà réseau bi màgget na. donc euh, nit yi bëri nañu. waa léegi kër yi yokk nañu. foo gisoon euh, tabax. boo xam ne que kër la woon ci suuf léegi ñu ngay teg étage mhm. léegi bu ñu tegee étage location ba neex na ñu ngay ñu ngay def ay étage te defuñu li war ci suuf mhm. mooy maanaam utal ñi ci nga xam dañ fay dëkk mhm. ay fu ñu war a parquer seen oto yi parking amu fa nañ ko waxante tey tey boo xoolee ci juróomi nit wala fukki nit yuy dox damay ne tey juróom-ñett yi am nañu oto waa léegi nag loolu yu fan lañ koy def donc dafay baax tey ñu am waxtaanu dëkku waxtaanu dëggu mhm. parce que ku nekk da nga war a dëggal li nga bëgg mhm. mais li nga war a dëggal ci li nga bëgg da ngay xool yow naka ngay def ba doo tooñ sa morom mhm. parce que tey am na ñoo xam ne dañuy luwe seen kër yi mais seen seen locataires yi kër jàmbur la ñuy dem la dem gaare wu. Mhm. mais loolu yëpp dafa bokk ci loo xam ne dafay ñaawal gox. Mhm. waa kon léegi il faut ñu waxtaan mu nekk loo xam ne tamit état bi daf ci jëlul ay jéego wala jéego yi ñu ko jëlee tamit dafa dul egg yàlla dafa def dama ñëpp si nekk di liggéey ak euh, association yoo xam ne dañu nekkoon fa nga xam ne dañ doon nasee affaire ul waaye mais chaque fois dama ko doon wax ci ministère bi. Mhm. damay ne tant que ñemewuñu jël ay luwaay yoo xam ne dafay saafaraal mbir mi. Ah, dafay métti pourtant état bu Sénégal mi ngi koy jël de bi mooy def défaut rek balaa suivi bi dafa am lu ko lal. Mhm. damay daf may neex torop may joxe ay exemple yu terre mhm. xam nga tey booy tabax sa kër booy tabax sa kër dañ lay naan kër gi dafa war a dëgër. Mhm. mais lu loi bi daf lay naan booy tabax kër tant que defuloo trois niveaux. wala trois étages. déjà c'est ambigu ci libellé bi. ñu ne la soxla woo bureau de contrôle. ñetti xam ñu luy bureau de contrôle mooy li nga xam ne mooy contrôler ndax tabax bi war na mun a antal li nga fiy def. mais fii ci Sénégal bu ñu xoolee ci dëkkuwaay yi. boo duggee koñ bi nga dëkk rek xam naa bu dee am na juróomi tabax woo na ma ne ñeent yi dañuy ñëw lal ñeenti brique def rez de ñu ñun nag suñ koñ dafa jekk de melul noonu. ah kon yow am nga chance donc may insister ci loolu parce que xam nga lu tax. Mhm. loi bi daf ñu war a jàppale. Mhm. parce boo ñëwee nekk kii tant que defuloo ñetti niveau wala defuloo ñetti étage mhm. soxlawuloo ku la contrôler non loolu nag pour mu am faa mu am contrôle bu strict de voilà mais contrôle loolu lu tax may may wax ci contrôle boobu parce que nit ki nga xam ne dafa xëy tey am un million wala deux millions investir ko def benn néeg mhm. amaat beneen deux millions ne dafay teg étage mhm. amaat beneen trois millions ne dafay teg étage léegi mu dem ba nar a dem troisième quatrième nga naan ko déet foo taxaw parce que il faut bi dëgër ci suuf fekk béy wéy na mbuus waaw mhm. waaw kon léegi kon loolu tax foofu laay waxee ci état bi mhm. am na loo xam ne que nit yi dañ ko war a comprendre parce que sénégalais du nekkul koo xam ne day uti information mhm. xam nga lañ ngay dégg dafa seer waa lu ci seer yow mi nga xam ne da ngay investir sa 10 millions tabax sa kër ñu ne la demal nga joxe un million même pas ñu ne la demal nga joxe cent mille francs pour pour sécuriser sa investissement. Mm-hmm. est-ce que jotul tamit ñun ñuy saytu suñu investissement xool mm-hmm. naka lañ koy sécuriser. Mm-hmm. parce que foofu la commencé kàddu yi yëkkati am na solo lool mais seetlu gi moo di population bi daanaka pour nga am kër sax lu jafe la ndax ñu ci bari seen loxo jotul seen ginnaaw li nga wax nii pour mu nekk oh, dina lool dina doon lu jafe lool ndax ñu si bari. daanaka téeméer booy jël juróom juróom-ñeent daanaka seen loxo jotul seen ginnaaw moo tax euh, solution yi nga fi préconiser dina jafe lool mais ku wax pro euh, ku wax Colobane Fass Gueule Tapée wax immeuble yu xayat yi maanaam immeuble yu bëri daanaka day menacer ruine euh, ci ay bés yi la ñu génn sax am na immeuble bu daan woon ba ñu am ñu si ñàkk seen bakkan boobu lan mooy responsabilité kilifa euh, yi fa nekk gis nañ ministre bi yëkkati na ci ay kàddu ni dinañ ci jël dogal ak ñi yëngu ci wàllu urbanisme ak logement ñëpp yëkkati nañ mais gis nañ kàddu yi daal rarement lay def effet day phénomène bi day am ñu bëri ñàkk seen bakkan ñëw wax ni buñ si jàllee rek jàll na ci. xam nga tey dafa am benn benn kii boo xam ne que moom mooy saytu affaire tabax yooyu boo xoolee IGB mooy inspection générale du batiment mm-hmm. dafa nekk loo xam ne dafa am direction bu am solo la mm-hmm. te direction boobu dañu ma bàyyi ma fen parce que damay liggéey ak ñoom mm-hmm. parce que fa may liggéey damay saytu ay permis mais dañuy laajte collaboration sax parce que amaana xëy na teg nañ ko fi mu nekk loo xam dafa war a saafaraal dafa war a gestu immeuble yooyu menaçant ruine mm-hmm. mais lu tax ba liggéey bi mënuñ ko def mm-hmm. parce que tey amuñu doole buñ ko defee direction yu mel noonu boo fa demee def ay nit yoo xam ne matuñu té euh, matuñu ñaar fukki nit ñu war a saytu Sénégal bi yëpp mm-hmm. liggéey bi nan lay demee ñaata habitants lañu daanaka ñoo ngi ci seize millions habitants. waa léegi boo fa bëggee jël ay loo xam ne que pour être large nga ne motul fanweeru nit. Mhm. nga ne ko moo war a saytu loolu ci Sénégal bi. Mhm. liggéey bi day sooxee. Mhm. kon loolu laay foofu laay waxee. dafa am loo xam ne que bu ñu xasee ba créer ko. dañ ko war a dëggal. dañ ci war a def moyen. parce que dafa jot tamit comme ni koy waxee parce que loolu au fait enchaînement de situation la. xam nga tey nit ki nga xam ne que amul doole. bëgg tabax benn néegam jëlul contrôle. nga bàyyi ko mu def. ki ko war a surveiller ki war a surveiller wala ki ko war a teg ci yoon amul jotu ñëw seet parce que gox ba dafa dafa rëy. Mhm. léegi naka lañ ciy génnee. Mhm. ci catastrophe rek la ñuy dëkk. Mhm. dañuy dëkk ci catastrophe parce que loolu mooy dëgëral li nga xam ne que manque de moyen bi nga xam ne moo nekk ci instance yooyu. donc ñuy saaf ñuy ñuy ñuy ñuy insister waat pour que nguur gi. ngir yàlla def na acte trois de la décentralisation jox kay lu bëri mais da ngay am loo xam ne ay pouvoir yoo xam ne dañ ko war a délégué. Mhm. parce que comme ñoom ci seen bopp amuñu personnel bi war pour mën a wër gox yi. Mhm. gëm naa ne bu ñu lëkkaloo ak yenn unité euh, entité yi fa nekk. Mhm. liggéey mi war naa gën a mun a joxe résultat yu baax. yeneen ci émission gox bi ci rajo mi FM point cinq di dalal Mariane Alice Gomis di urbaniste di candidate ca mairie bu Gueule Tapée Fass Colobane ci kanam tuuti. mën ngeen dugg ci buumu jokkoo bi woote ci 88 628 84 84 88 628 85 85 88 628 86 86 ngeen bës 1 doo joxe seen xalaat ci émission bi àddu ci beneen pàcc muy wàllu éducation Gueule Tapée Fass Colobane wàllu jàng beeg jàngale bi lan mooy tolluwaay bi. ah boobu nag mooy bi gën a ñor ñëpp. Mhm. parce que ku fi ñëw defe naa ci euh, commune Gueule Tapée Fass Colobane war nga war a wax ci wàllum jàng. Mhm. parce que commune bi dafa am na ko yàlla bindee. suñu commune dafa bokk ci commune yi nga xam ne que mun nga fa juddu jàng ba dem université doo soxla dem jol jël oto. Mhm. kon xam nga loolu am na loo xam ne yàlla teggi nañu ko ba pare. Mhm. mu nekk loo xam ne que ceinture scolaire bi dafa dafa dafa intéressante. am nañu école yu bëri école yoo xam ne du école yu ndaw mais tey boo xoolee biir Gueule Tapée Fass Colobane ndaw yi ñu jàng foofu la ñu ëppee amaana. kon may ñaax xam nga compétence yi am na éducation bokk na ci. Mhm. mais dafay am loo xam ne bu ñu lay jox compétence yi dañ lay naan dañ ko tënk ci du euh, mu tuddati xëy na ñi am bac wala ñu ne la enseignement élémentaire bi. Mhm. Euh, publique moom la ñu trans moom la ñu transféré transféré wu ñu euh, nu mu tuddati enseignement moyen mhm. affaire yooyu mais dama ne gox pour mu dox il faut éducation bi jaar yoon. kon yéen seen éducation jaarul yoon. man li ma gis ci éducation bi foofu li ma gis ci école yi foofu hmm. dalul xel te duñ ma bàyyi ma fen hmm. parce que man mii du ma meer du ma dara mais dama nekk gis benn école boo xam ne que mooy fi nga xam ne tuut tànk yi foofu la ñuy commencé seen àdduna hmm. boo fa doxante woon dëwën da ngay yéemu si àdduna da ngay yéemu si yàlla ndaxte foofu xale yi foofu la ñuy jàngee xale yi ku fa dem da ngay def ne ngunu ganaar la bu tawee day taa ba daaw bi ñuy contacter dañ dafa doon taa ba ndox yi vert ay bonne volonté ñoo ñëw defar ko man tamit bañ ma contacter en tant que actrice de développement mm-hmm. nit koo xam ne que damay saytu lépp lu nekk ci sama gox mm-hmm. ñun tamit def nañ fa ay jéego mm-hmm. te da ci woo ñëpp parce que neen naa tamit gox boo ko bëggee defar boo ko commencé wulee ci ndaw yi ma ne dina dem te loolu dafa nekk lu am solo kon suñu ndaw yi bu ñu leen di dugal école il faut ñu dugal leen ci condition yoo xam ne que dinañ mën a kii mënoo dugal benn xale bu ndaw ci école mu am ay pax justement dañuy des ci wàllu jàng ak jàngale gis nañu école bi ubbi na te way yu bëri daanaka seen loxo jotul seen ginnaaw ci wàllu sax am na ñenn kuréel guy njaboote wàllu jàngal jàngale rawatina enseignant ak étudiant muy INAPES ñu ngi inscription yi dafa yokk lool naka noonu wàllu fourniture yow en tant que actrice de développement yan jéego nga ci def dimbali population Colobane man dama lay wax ne que en fait man en tant que actrice de développement man dama ciblé ci éducation bi te dama ko jagleel xale yu ndaw yi maanaam sama matériel maternel bu fa nekk mm-hmm. maternel bi ba ma fay ñëw Euh, ay pax ñoo fa nekkoon kenn xamuloo nooy nirool mm-hmm. te grâce à des partenaires parce que nee naa affaire bi volonté rek la mm-hmm. partenaires yi ñëw nañ ci jàpp man tamit ma jàpp ci li ma am ci li ma mm-hmm. yàlla wërsëgal ñu defar ko ba tey boo fa demee xale yi bu ñu daa bu ñu dawee bu ñu daanoo dootuñu gaañu ma xool ne que saal yi nu ñu bindoo tamit aération bi des na kon dafay am solo tamit ñu jël ay ventilo tegal leen ko fa jënd nañu ay ventilo defal leen fa daaw peinturoon nañ ko mais ren dañu ñëwaat andiwaat beneen couche de pour xale yi rek boo xam nga nit ki bu nekkee yow fa ngay tëdd wala fa ngay jàngee. Mhm. bu kiiwee rek bu rafetee dangay gën a am solo dangay am am euh, kattan yaa ngi. Ah, am na ku nekk ci buumu jokkoo bi asalaamaaleykum allo allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam noo def soxna si baa tuuti rajo bi. yaa ngi si noo tudd fooy woote. maa ngi dëkk maa ngi tudd Malado Seck dëkk Fass Delorme. Mhm. waa man moo taxoon ma woote. waa ñoo ngi lay déglu. waa parce que man boo gisee ma wootee. Mhm. dama dama ciy sawar. Mhm. parce que Mariane. parce que bu fa ne xam ne ñun bu ñu ko amee comme bu ñu waxati dara. parce que jooyatuñu dara jooyuñu ndax suñu doom yi siitatuñu. ragalatuñu mhm. rafuñu mhm. ndax moom mhm. parce que lépp loo xamante ne nii jeunes yi dañ koy soxla moom nañ ciy dox lépp li nga xamante ne bi école jardin yi Mariane loxoom mi ngi parce que déjà école maa ngi yi bi nga xam ne sama doom foofu la doon jàngee buñ ko daan dem ñun dañuy ruus mais léegi macha allah buñ ko demee day mel ni ñu ngi beneen monde parce que da ko defar ban mu yaa chaque année ren mooy sixième édition muy mois de décembre. Mm-hmm. day defara xale ay ab de Noël. Mm-hmm. Mariam loxo mi mi ngi ci yi. Mm-hmm. ay tonni tonni ciment la ñuy yóbbu ak yeneen ak yeneen. donc nag loolu donc moo taxoon mën a naa dugg ma def. témoignage boobu ci moom. Mhm. waaw maa ngi leen di jaajëfal nag. jërëjëf mën ngeen a def ni moom woote ci 88 628 84 84 88 628 85 85 88 628 86 86 ngeen bës 1 dugg si buumu jokkoo bi ginnaaw jàng ak jàngale wàllu wér-gu-yaram. wàllu euh, waaw wér-gu-yaram bi moom mhm. euh, ñun en tant que li gën a tax ñu toog parce que dañu ne. ci compétence yi ñun suñu axe de de de de mooy dañ ne compétence yi bëri na mais dafa am yoo xam ne ñent yoo xam ne kenn waru ko dissocier mooy maanaam éducation santé sport ak culture donc santé bi tey yow wax nga ko nee nga école ibbi na waaye ci quartier populaire yu bari am na ñoo xam ne du ñu inscrit seen doom yi parce que seen loxo jotul seen gannaaw de la même manière que ñooñu ñooñu ngay xam ne que seen loxo jotul seen gannaaw tey bu ñu feebaree mënuñu faju mënuñu faju yaakaar nañu prise en charge prise en charge mënuñ ko defal ñëpp kon mu nekk loo xam ne dafay am solo pour ñu kii santé bi. Mhm. am na ku nekk ci buumu jokkoo bi asalaamaaleykum allo. allo. allo noo def baa ngi ci jàmm. salaamaaleykum sëñ bi naka nga def. ça va alhamdulilah noo tudd ak. sant yàlla bu wér. waa tey xanaa dañoo taxañ añ bi rek teg ko dale man mm-hmm. maa ngi dëkk Gueule Tapée maa mm-hmm. ngi tudd Ndeye Saly Diouf madame Cissé maa ngi dëkk Gueule Tapée sawar loolu nag di wax ci sama liggéey boobu di Mariane Aliou Diop mm-hmm. ndaxte daf ñu koo ji Mariane mi ma nga ca daara ya Mariane ma nga ca église ba Mhm. pompe yi su kon bi suñu kër yi day taafees dal nag ndox mu jënd ay pompe yabal ñu koy liggéey suba ba jant soo ta fay mhm. kon nag gàcce nga laa mhm. parce que ñu doon wut ci yëpp mu kii ndaxte ka am di jël di def ci biir gox bi ah bu ko yàlla dénkee leneen kat dina ko séddoog waa feebar ñu yëkkati ordonnance ñam dox yi Mariama la mu ca amat la mu ca amul yëpp ñu boole ñoo jox tag boole dara ko kado yi sama doom damay jiitu taay gis ko mu ànd fan. Mhm. ni ko waa yow jamono bi nekk bii moom moo la bi mhm. mu ne ma dafa am daam bu koy séddale fële ñu jëloon sama bulletin. Mhm. ni ma naa naa àndaale man dinaa ci am. gisuma ko woon pour remercier ko waaye keroog daal ñëw gël tàppe di def foofu teele baa ma dox sama tànk ba ñëw dox sama suñ du a parce que la muy defal suñu doom léegi ñëpp ngi jàng pour am moyen pour dem wuti ci cadeau donc lii la wax nee bari tawee wu tànk. bi dañoo sonn dañoo damm dañoo tay. Mhm. te ku ci falu fàtte bi. kii nag dem naa ne tey jii de. jërëjëf parce que ku am dina defaral nag moom. Mhm. moo ngi noonu. Ah, jërë jërëjëf. donc nag ñu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla may mu nekk maire jàmm ak salaam. Mhm. ñu koy jaan ñëpp ñu jël seen carte bu ëllëg ca bis ba. ndax nag jigéen nag dafa xew nag ci ji. ko voteel ñam ba xam. <laughs> waaw kay jërëjëf sëriñ bi. Ah, mën ngeen def ni moom woote ci 88 628 84 84 88 628 85 85 88 628 86 86 ngeen bës 1 dugg ci boomu jokkoo bi ñu toll woon ci wàllu wér-gi yaram. waaw ni ñu koy waxee ñun wérgu yaram bi dañ ko dafa nekk loo xam dafa dafa primordial ci suñu suñu projet. de mhm. développement. Mhm. parce que tey ni ñu koy waxee euh, dëkk bi metti na euh, santé yi demeewul noonu. poste de santé am na mais tey lii problème bi mooy poste de santé yi est-ce que méngoo na ak jamono. Mhm. donc tey dama ciy sawar a wax parce que fa ma nekk di liggéey dama nekk déjà di liggéey ak ministère. Mhm. ba nga xam ne que ñun au tout début dañ doon demee suñu bopp noonu suñuy xalaat ak. yéenewu maire ba may liggéeyal mhm. muy naan man tey mënatuma nangu ci sama dispensaire nit di ñëw naan dama war a gis benn spécialiste amu fa mu commencé def ay space ay spécialité ci kii bi ci euh, ci plateau yi bu ma demee ba xam nga dafay baax tamit nga nga boole ci ñi nga xam ne ñooy saytu mbir mi mhm. bañ demee ba wax leen parce que ñun pour ñun dañuy améliorer noonu rek dëkk yi mhm. ñu wax ne que loolu sax ñoom loolu mooy seen liggéey ndaxte fu mu toll nii ñoom waxatuñu poste de santé mais dañuy tabax dañu dañu dañu dem ci ay poste de santé amélioré mhm. maanaam tey ci gis-gis bi am na ku nekk ci buumu jokkoo bi asalaamaaleykum waaleykum salaam noo def sëñ bi waaw maa sant bu baax a baax. ça va alhamdulilah noo tudd ak fooy woote. ça va sant yàlla. ñu ngi rafetlu bu baax émission. Mm-hmm, jërëjëf. di leen wax ne ñun la ndaw bi dëkk HLM Fass. Mm-hmm. bokk ci commune nu Gueule Tapée Fass Colobane. Mm-hmm. doon bëgg a participer ci émission nga xamante ne da ngeen ci invité euh, Alice Gomis. ñoo ngi lay déglu nga tënk ko rek. doon indi suñu contribution ci li nga koy wax Mm-hmm. ñoo ngi lay déglu. waaw tey jii ne nag ma jox présenté man la ndaa ndaw bi nga xamante ne nii dañu euh, coordinateur mouvement suñu gox suñu yitte ànd ak Alice Gomis mm-hmm. ci li nga xamante ne nii dafa woote muy ànd nawle mm-hmm. ànd nawle bi nag boo ko déggee mooy Mariane Alice tey daa woote ci ñu ànd ak ndaw ñi liggéey saa mu woo ndaw ñi ci gunge ñu te boo xoolee boobee ba tey politique bi fi am ñun ñi nga xamante ne ay ndaw lañu duñu topp ci ginnaaw mag ñi di leen gunge te saa bu ñu demee ba seen lépp commencé baax. Mhm. ñu fàtte ñu jël ginnaaw. Mhm. kon nga xam ne Marianne Alice Gomis moom li muy wax dañ koy ñëw tey. Mhm. ndax dëggal bu ñu koy dëggal mooy Marianne Alice mu ngi ci santé yi. Marianne Alice mu ngi ci éducation yi Marianne Marianne Alice mu ngi ci culture bi. Marianne Alice mu ngi ci sport bi li koy wund mooy tey assainissement buñ koy wax. Mm-hmm. même bu fekkee bokk ci compétence transféré Marianne Alice mu ngi indi dooleem ak soutien am mm-hmm. jël ay moto pompe joxe ko ci commune bi nga xamante ne mooy Gueule Tapée Fass Colobane mm-hmm. ñun ñii di ndaw jël téléphone bi di ko seede tey moom ñun ñii la fekk ba suñu gox ñun dooleel ñu jox ñu pompe te mairie Gueule Tapée Fass ac euh, Gueule Tapée Fass Colobane ci suñu diggu gox la nekk ci suñu diggu kër ñun ñooy ndaw ñi nga xamante ne dañuy tijji fenêtre bi jàkkaarloog mairie bi te du ñu am intermédiaire kenn. Mhm. waaye nag Marianne Alice Tay daa daa jóg ci ñu xam ni moom day jigéen ju mën góor. Mhm. ndax sa doom jigéen moo nekk ci ay ëttu góor. moom li muy def góor ñi nga xamante ne dañoo bëgg ci dëkk naan jox leen ñu jox leen ñu boole ñu joxee ñu defaral leen Marianne Alice moom wootewul foofu Marianne Alice moom daa tàmbalee jëf moom politique gu jëf lay def moom bokkul ak ñi nga xamante ne politique gu wax la ñuy def. Euh, sëñ bi jërëjëf. waaw ah, maa ngi lay bëggee waat bu baax a baax doon apporter suñu contribution fii ci ndaw ñi nga xamante ne ñoo ànd ak Marianne Alice Gomis di ko wax euh, bonne continuation et Marianne Alice ñu ngi sa ginnaaw bu ragal dara ndax boobee ba tey ànd bi rafet na te dina continuer di gën a rafet ñu nag yow ba ci mairie bi incha allahu rabbi mhm, jërëjëf Euh, euh, ñu ñëwaat euh, ci waxtaan bi daanaka ñaar fukki simili képp moo des ci waxtaan bi te buñ toppee téléphone bi boo muyul yeneen poñ yi duñ ko sax duñ ci sax àddu ñu jëm ci wàllu bilangu maire bi muy Ousmane dooy muy maire bu Gueule Tapée Fass Colobane yow sa xemmemteef mooy nga bëgg ko wutu yow léegi yorin bu mu ne yoroo commune boobee yow naka nga ko gisee. ah ni ma ko gisee nag jarul sax ma la koy expliquer parce que bu fekkoon nekk dama ànd ci lu mu def allo. allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw nga def waay yeneen ci jàmm. waaw sant yàlla bu wér. jërëjëf waay man de dama dégg euh, Mariane bi woote léegi nii vraiment dama ko dégg ci émission bi. Mhm. voilà man a xaaral ma woote daal vraiment di ko encouragé ci li muy def daal. ah jërëjëf yow sax nga. tëj waaw man maa ngi def man maa Colobane laa ne quoi vraiment dama gis lu baax lu muy def. Mhm. ci gox bi fépp gël gël tàpp Fass Colobane sincèrement maa ngi ko ci encouragé bu baax a baax a baax. Mhm. parce nit ku baax la. nit koo xam ne da jël sa alal di ko def ci nit ñi. Mm-hmm. bu la yàlla dimbalee nga toog nga nekk maire sincèrement pense que di nga def lu mm-hmm. maa ngi ciy remercier bu baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. jërëjëf man la Jibril Doumbia ah Jibril Doumbia jërëjëf waaw Jibril Doumbia waaw Jibril Jibril Doumbia sax mooy tëj euh, boobule ci téléphone bi ñu continuer waxtaan bi sinon kon duñu àddu ci yeneen euh, poñ yi ñëw ci wàllu yorinu Ousmane Ndoye yow naka nga koy gisee man euh, li tax ma jóg man Ousmane dooy tey euh, le maire Ousmane Ndoye dafa nekk sama xarit. Mhm. ndaxte mos naa battre campagne ak moom. parce que man ah, dama nekkoon ba pare nga bëgg dama mais la ma ko waxoon dafa leer. Mhm. daf ma fekk ci sama gox. 2016 mhm. ñuy battre campagne pour euh, référendum bi ma gunge ko si. mu gis ña ma wuyu si nag. maire yi jóg nañu. ndaxte jox naa leen cëru yaay. ndaw yi ñëw nañu. ba mu gisee loolu daf ma ne ah yow de bëgg naa liggéey ak yow ma ne ko man de sama liggéey méttiwul boo ma jàppalee ci ndaw yi li ñëpp seede parce que man sama xalaat ci ndaw yi la mm-hmm. parce que ma ne ndaw yi yore réew mi ëllëg mm-hmm. ma ne ko boo ma jàppalee ci ndaw yi ak femme yi mm-hmm. maanaam awma pourvoir de mais bës bu buñ ca tolloo man dinaa la gungewaat sol sama dàll pour ñu falaat la eh, ay bés boo ko defulee nag man bés boo ko defulee di ma am en face donc loolu xanaa nag yegg na ba pare dafa nekk loo xam ne que tey dama gis ay flyers au bilan. Mhm. ñu ne la place de la na euh, euh, place de l'obélisque mu nekk loo xam ne ministère a ko def. Diène Farba Sarr moo ko def. voilà mhm. ñu ne la euh, poste de santé. Mhm. union bu HLM Fass union européenne moo ko def. projet yi ñuy wax nii pour femmes yi ay formation fi ñu yëpp a ko def. mais lépp dañ ci lëngoo ak maire bi. waaw dañ ci lëngoo ak maire bi ñu ko si jaajëfee bu baax a baax. waaye suñu loolu bu amuloon tey parce que ñun ndaw ndawu seen Afrique yi. waxuma Sénégal de mais dañuy jooy naan tubaab bi daf ñu noot. Mhm. waa léegi nag naka la ñuy def ba génn ci boomu jaam bi. Mhm. bu fekkee ne lépp la ñu nar a réaliser dañ ko war a wekk ci boomu jaam bi. Mhm. te tey am nañu yàlla dafa def ak acte trois de la décentralisation ñu am tuuti moyen est-ce que jotul tey tamit suñu moyen yooyu ñu xool naka lañ koy gérer defar suñu bopp defaraat suñu taxawaay ba ku ñuy fekk fekk ñu ci yoon. parce que nit koo fekk ci yoon day yéen neex gunge. Mhm. moo gën ki nga xam ne dafa toog tey dañu bëgg ñu wax ñu si suñu budget lan lañ ciy réaliser. Mhm. ñun dañ leen fa teg en 2014 parce que Khalifa Sall dafa am lu mu commencé woon. Mhm. mu nekk loo xam ne lu ñoroon waa Ndakaaru Njaay la ñu yaakaaroon nekk bu dellu siwaatee ñu voteel ko dina mun a nekk waaye yàlla dafa def. acte trois de la décentralisation dox ci ñaari diggante yi loolu nag nekk loo xam ne tamit dañ koy rafetlu parce que yokk ay pouvoir yi waaye tey dafa wàññi loxo Euh, maire de dakaar ci gox yi. Mhm. wax nag tey bu fekkee ne que sax cent franc la ñu am yow boo amee def sa kër dix mille franc nga xam ne moom nga am pour gérer sa kër foo koy def. doo jéem a xool naka bu fekkee ne que yow sa dépense trente mille francs la te dix mille francs nga yor xanaa di nga commencer dara ndax dara sa njaboot bi ndax ñu mun cee lekk mhm. waaye boo naree xaar li nga xam ne mooy jóge feneen pour nga mun defar gox bi loolu du yoon mhm. ñun dañu bëgg li ñu am mhm. ñu xool naka lañ koy defaree parce que waxatuma ay milliards yu teg mais un milliard rek boo ci tegee dara man nee naa weccet boobu mu nekk deux cent wala trois cent wala sept cent ñoom ñoo xam waaye gëmoon naa ne tey ku ci nekk bu fekkee ne da ngay def te yàlla tax bu fekkee ne population bi la fal da nga leen a nawloo bu fekkee ne population yi nga leen yi la fal da leen a yéenee hmm. gëm naa ne xaalis boobu boo toogoon tey ne leen ah xaalis bi bëriwul pour defar commune bi yëpp parce que dañoo sakkan macha allah hmm. ma ne ko waaye nee ñu hmm. deux cent millions yi chaque année dinaa ko dugal ci benn quartier parce que commune bi tamit ñetti quartier la demee ñetti quartier yi benn commune bi la tey boo jëloon deux cent millions ci kii boobu def ko mandat cinq la parce que bii c'est exceptionnel sept ans et deux millions multiplier ko par cinq ans gox bu nekk bu noon na am trois cent mhm. millions te gëm naa gox bu amee trois cent millions may ma ma daane rek mhm. gox bu nekk bu ñu fa investiroon ci suñu xaalis trois ci suñu koppar trois cent millions dinañ ci yëg dara mhm. te dinañ ko fi ñëw seede ndaxte tey nag loo nee nañu lu mu metti metti metti metti metti am na loo xam ne dañ ko koy xamal dañ ko koy dañ Gueule Tapée Fass Colobane yow naka ngay duggee ci élection yi da nga ci ànd coalition wala ay mouvement soutien wala ay mouvement citoyen naka anam ba daan anam ngeen ciy duggee. mouvement soutien lañ ciy demee. Mhm. parce que dañoo seet ne que depuis boobu ba léegi dañuy naan dafa jot parti politique yi génn ci suñu nawetaanu gox. Mhm. te boobu ba léegi dañ koy def. pour bañ mu gudd dañ koy dañ koy tënk ci ñaari euh, coalition yu fi amoon mm-hmm. mooy 2009 Benno Siggil Sénégal ñu am ci résultat am ci mm-hmm. ndam ñu ñëwaat 2014 ñu am ci ndam mais boobu léegi ñu ngi fii toog di jooy mm-hmm. ndaxte ba ñu bañ ca yeggee dañuy def vote émotionnel parce que dañuy naan dañu jàppale Khalifa Sall mu tegal ñu fi nit amaana nag kam ñu fa tegal xëy na yéene bi ak Khalifa Sall amoon ci ñun mënu ko eggali wala moom ñoru ko pour mu yeggali ko moom la ka ñor lay def loolu tax léegi nag man dama bokk feneen mais dañu ne ñun comme affaire gox la. Hmm. nañ ko def match nawetaan. Hmm. waa Gueule Tapée jóg waa Colobane jóg waa HLM Fass jóg waa Fass jóg ñu ñëpp ñu lëkkaloo ci mouvement fort yi parce que tey ci jamono yooyu la ñu nekk. jamono hmm. boo xam ne que association yi ñoo fiy def liggéey bu. mucc ayib ci biir gox yi kon dafa jot tamit comme ñooñu ñooy def liggéey yu mucc ayib ñu dafa jot tey ñu dem jëli la ñu moom saytu ko fa mu yem neex ñu defar seen gox yi keneen ku leen di jàppale nag ñoo fekk leen si ba léegi waxoo ma ñan ngay àndal ci wàll kii. ci coalition ngeen demee wala. loolu laa lay wax quoi au fait dañu dañu àbb récépissé. Mhm. mais ci biir récépissé bi boobu. récépissé boobu euh, mouvement euh, mhm. patriotique euh, du développement. Mhm. Aliou Sow. mu nekk loo xam ne candidature associée la. donc mu nekk loo xam ne daf ñuy ñor parce on n'a pas les mains liées. boo nekkee ci coalition yu mag yi dañ lay tënk. dañ lay tënk parce tey boo nekkee profil bi. yow bu fekkee ne profil bu baax bi kii nekk tête dafa jóge ci. taxaw Dakar. Mhm. kon keneen kiy topp dañuy xool naka lañ koy joxee wala ñeneen ñi ànd daal. Mhm. ñun ñu seet seet seet ak suñu kàddu fu mu soree ci population bi parce que ñun yàgg nañu def porte balaa lii di ñëw. Mhm. dañu yàgg dem ci gox bi di waxtaan ak nit yi. déglu leen parce que yenn saa yi dañuy déglu nit yi waaye duñu leen dégg. te ndaw yi woote sànq. foofu laa leen nawee ndaw HLM Fass yi dañu ne dañ leen ñuy déglu mais déglu ñu mhm. dañ leen génn leen ci gestion gox bi mhm. andi ñu fi ñi nga xam ne ñun ñoo koy leen fiy teg mhm. ñu defar ñu li ñu bëgg looloo tax tey ñu ne dañuy bàyyi affaire coalition parce que récépissé boobu ñu yor moo ñuy may tey mouvement yi ñu àndal muy 100 pour cent Fass muy Colobane Debout muy ànd defar suñu gox ak ñeneen ñoo xam ne que dañuy dab si ñu mun a am toog daf am consensus fort boo xam ne que profil yëpp dañ leen di intégré mhm. ci suñu biir rek lañ koy jëlee mhm. maanaam dañuy jël ñi nga xam ne dañoo bëgg defar gox bi jiital leen mhm. parce que defar gox te dénkoo ko dara gëm naa ne boo ko defee ca conseil municipal dina la defaral li nga bëgg te loolu yaakaar rek lañ ci am te gëm naa ne war na mun a nekk élection yi gis nañ ñaari weer moo si des euh, est-ce nga investir euh, terrain bi di def euh, porte à porte mu toll nii chaque jour la. Mhm. amul amul bàyyi. Mhm. parce que dañu gëm loo ne que boo nekkulee coalition mënut a dem. Mhm. mais ñun dañ ciy gëm yàlla. parce que dafa am loo xam ne bañ fa yeggee lu ñu am jël. ndaxte suñu gox bi dañ ko dénkaane dénkaane dénkaane dénkaane dénkaane ba mënatu amuñ ci luñ ci ne lu ñu ci neex. kon man bu ma jógee di defar gox bi gis keneen feneen muy defar goxam. gis keneen feneen muy defar. est-ce que dafa dul jot tamit ñu ñu toog waxtaan xool naka la ñuy àndee pour defar ànd defar gox bi. boobu daf fi daf fi xew. ànd defar gox bi daf ci xew ñun ñu teg ci xoolal ànd dam jël li ñu moom. Mhm. parce que dafa jot tey ñun ñu defar suñu gox yi. te ci mhm. tànk yu lañ nekk port à boobu nag ñi ma àndal mën nañ ko seede chaque jour ñu ngi ci. Mhm. du ñu tëdd balaa une heure du matin. parce dañuy toog ak population yi. dañuy waxtaan ak population yi parce que dafa wees léegi ñuy naan dañuy dem bote ji parce que dañoo bëgg kenn wala dañoo bëgg diw. ko ñu munti bëgg tamit suñu bopp ñu gën a. du bañ nañ la. ci wàllu code de bi nag est-ce am nga doye bi population est-ce que Gueule Tapée bu ñu wàññee téeméeri doomu aadama est-ce que juróom-ñeent fukki yi xam nañ la. ah ñu bëri xam nañ ma parce que nee nañ la damay yëngu. Hmm. xëy na xamuñu woon kanam bi looloo leen manqué parce que fu ma mënti dugg ci gox bi dañ may naan ah yow yaay diw kon yaa andi woon lii ci daara bi. Hmm. bu ma duggee fen ah yow yaay diw. Hmm. jox nga sama doom kado ah yow yaay diw yaa fi indi woon ciment bi hmm. ah yow yaay diw yaa ñu xàmmeewu rek waaye defoon nga fi lii hmm. kon ñoom nee nañu lu baax dañ koy wone mais yar bee taxoon rek ma topp ba nattoo ko ci ñeenti auditeurs yi dugg fii sànq rek déedéet nattuma ko ci ñooñu hmm. parce que buñ la waxee Abdou Noël de l'excellence dafa war gox bi te bu buñ bu ci yàlla àndee ren mooy nekk sixième édition bi est-ce que action yi xam nga nee nañ politicien moom du def dara te yàlla tax nga baal ma si kàddu yi ndax lépp lu ñuy ci def rek am na luñ ciy séentu est newul élection locale yi moo tax ngay def yenn investissement yi. kon xam nga ne kon vraiment am jot bu ma la nee tey sixième def investissement à long terme mais c'est normal xam nga lu tax parce man dama gëm ne man dama jàngi woon mhm. gëm ne am na lu ma war a mhm. liggéeyal sama gox. Mhm. ma ciy dem man kenn. wet ci loolu amul ku ma ci woowul nag. ba ci maire bi ñu nekk. woo naa ko ci. ne ko naka la ñu kii am na yeneen candidat yu nekk ci gox yi woo naa leen ci nee naa leen. Mhm. bu ñu ko bëggee defar il faut ñun tey ñu nangu ñàkk dara ci suñuy salaire. Mhm. ñàkk dara ci suñu am-am. Mhm. boole kook li population yi am bu ñuy yalwaan yalwaan lu tuuti mun ko defar. te loolu lañ nekk nag ba ma gis ne ko ñooñu. duñ ma si fekk si te bu élection jotee ñu ne nañ ñu ñoom man tamit ma voté leen ma ne loolu mënatul nekk. ndaxte bu ma leen woowee ci dara te fekku leen ma si xaw ma naka lay ñàkkee fayda ba yëkkati man li ma liggéey yëpp dem leen ko yóbbul. alors que woo naa leen si du benn du ñaar. kon loolu foofu la ñuy waxee. Mm-hmm. affaire bi investissement humain la engagement citoyen la. Mm-hmm. parce que ci engagement boobu noonu nga koy waxee ci la ambition bi di ñëw. Mm-hmm. parce que da ngay def ngay daj di def di daj di def gis ñoo xam ne que ñu kontaan ndaxte da ngay toog man damay def yenn saa sama ab de Noël def joxe ay 200 personnes fekk ñoo sama kër fekk ay xale yuy jooy. mu leer ma ne tey bu ma yoroon. lu jooy bàyyi si sa weewu tànk nag. déet <laughs> déet du ma dem béy su ma weew tànk man ñi may jox kado xaw ma leen mhm. critère de sélection laa teg mhm. première année bi moo amuloon critère de sélection première année bi dama ñëw pour bégal sama waa gox ma jël 76 en 25 avec la moyenne mhm. donc moyenne bi gënoon ngande 14 14 de moyenne la woon boo ko xaymaa ci ñuy composé ci 7 euh, ci 10 7 de moyenne la woon waaw macha allah cinquième édition daaw depuis boobu ba léegi cinquième édition on a donné à plus de 200 enfants moyenne bi ci gën a tuuti quatorze la. Mhm. bi ci gën a ngandi ay dix-neuf la. Mhm. kon gàcce ngàllaama. Mhm. donc mënuma def béy ci ma sama wéyu tànk parce que man nee naa dama woote ne que damay encourager sama doomu gox yi ndax ñu jàng. dama bëgg ñu teewee fu nekk. te comme éducation mooy moteur bi. foofu lañ koy commencer foofu la ñuy teg suñu loxo. te man fa may teg sama loxo pour mu dox utuma si sama doomu rak utuma si sama doomu mag utuma si sama ñees. dama ciy ut doomu gox bi nga xam ne mu ngi ñëfe pour mun koo mériter. ci wax élection locale wax euh, programme yow ban programme nga amee. programme bi loolu lañ la wax suñu programme dañ ko axé ci éducation. Mhm. axé ko ci euh, euh, santé. Mhm. axé ko ci sport. ak culture est-ce que war a ko woon njëkkee ci assainissement comme comme. bi wax nañ la ko ba pare assainissement bi moom à l'unanimité dañu ne assainissement bi moo jiitu. Mhm. mais assainissement bi dafa am lu ko laal tamit parce que dafa am incivisme bu metti bu nekk ci gox bi. Mm-hmm. donc assainissement bi non seulement dafa am loo xam ne suñu comportement la suñu ñuy defee ci kër yi la suñu mm-hmm. ñuy doxee ci mbedd mi la mm-hmm. moo ko indi mais teg ci xaalis bañ ci yaakaar buñ ci war a def parce que dañ ko xayma ci ay six neuf milliards amuñ ko ci suñu budget kon dafa am ñu commencé loo xam ne que dina mun a wàññi pour ñu mun a fekk ay nit yoo xam ne que am nañu loolu te dañ koy yaakaar ci nga xam ne que mooy nekk suñu candidat ville de Dakar nga xam ne tey yàlla def na dafa am budget bu mag. Mhm. te amul territoire ci moom rek lañ ko yaakaaree tey parce que nee nañu tey ñun waa population Gueule Tapée Fass Colobane ku ñu bëgg a jàppale te jàppoo ci assainissement bi rek ñun amuñu ak yow. benn yaakaar ci wàllu partenariat yi ndax euh, maire yi ñoom dañuy bénéficier wu ay fonds. waaw loolu partenariat yi la yaakaar nañ ko mais nee nañ la ñu ngi koy yaakaar fii waxuma sax Dakar mais à l'international mais loolu dox nañ ko ba pare. Mhm. dox nañu partenaires yu bëri yoo xam ne que dañu ne ñoom dañu liggéey mhm. même ba ci état France mhm. mais dañu ne dañu liggéey ak opposition xam nga lan mooy dox bi mhm. nañu dox jël suñu gox bu ñu ko jëlee partenaires yi dinañu ñëw te ville de Dakar tamit dañ koy junjoon man li may wax dama ci jóge de parce que saa ñu na namee dóor rek lu doxul rek ñu ne waa bitim réew la kon bu ñu namee koppar bu ñu ko wekk ci waa bitim réew rek dafay dafay am maanaa dafay yenu maanaa ville de Dakar boobu ma lay wax war na mun a tey ñëw saytu yenn problème assainissement bi ci suñu gox yi. Mhm. parce que comme ñun ñooy xoolu Dakar dafay rafet te ñu delloo ñu jukkal parce que fi ñu fa moom doo doo jaar wala nga jël géej bi. mais sa programme bi nga amee est-ce am nga si njort bu rafet ni c'est faisable. Euh, xam nga lu tax ma am njort bu rafet. Mhm. parce que ñun demuñu wekk ko ci ay milliards partenariat yi liggéey nañ ko mais li nga xam ne que montage. local la. Mhm. dañ koy def ba mu mat. Mhm. loolu tax ma lay naan suñu dërëm yeeg suñu ñaar dërëm ñu am moom la ñu njëkk moom la ñu njëkk favoriser di ci woo tamit diaspora bi. parce que dafa jot tey tamit diaspora bi ñëw ci loo xam ne ay teel doo woote te faloo góor <laughs> bu ma faloowul diaspora bi dafa am pour tey dañoo war a am ay fonds investissement solidaire mhm. parce que tey lu benn nit mun fukk ko daak mhm. tey bu ñu toogee localement am suñu 1000 francs yu ñuy cotiser xëy na ka ka nekk bitim réew war ñoo mën a jox 10 000 francs bu ko mhm. mu nee kon loolu yëpp dafay nekk loo xam ne que dafay tax ñu mën a jàpp ci projet gox yi projet yi nga xam ne que c'est des projets structurants waxuñu que grands projets yi ñëpp xam nañu lu ñu kenn dofatul mhm. ku tukkiwul tamit gis nga àdduna bi ni mu mel bu mhm. nekk bëgg nga lu rafet sa gox mhm. mais li rafet loolu dafa dafa am loo xam ne que ñun ñoo ko war a commencé teg ci ay jéego te jéego yooyu balaa ñu koy mun a approprié wu ma cest à nit ki respecté li nga koy def il faut nga boole ko si donc ci boole boobu moo tax may naan suñu projet yooyu te ñu ngi koy dox ndaxte commencé nañ ko dañ ciy woo ñëpp nag dañ ciy woo ñëpp ka ca am 1000 francs ak 100 francs da ñëw ndaxte suñu gox rek la liñ ci namm mooy defar ko buñ ko commencé defar ndaxte olof Njaay dafa ne uude nam la fekkee noonu la lay ëwalee sa téere mhm. kon ñun na taxawaay bi rafet mhm. ndax ku ñëw fekk ñu ci lu rafet di ñu gën a gunge ci lu gën a mhm. rafet ci wàllu caution bi caisse de dépôts ak consignation daanaka àpp gi léegi mu mat ci ñetti fan ci weeru novembre est-ce que joxe nga sa koppar fukki millions ak juróomi wala 30 million yi ndax ci élection départementale yi. loolu yëpp sotti na parce que ñun récépissé bi ñu jël ana kooku déposé na caution bi ba pare. mais li gën a déposé caution bi na ban anam la dañoo ngeen seen coalition bi ku ne dafa joxe ñaar dërëm ñuy juróom wala yow yaa yëkkati sa xaalis rek joxe. déedéet ki moom parti bi moo yëkkati sam joxe. kan moom moom parti bi. Euh, Aliou Sow. comme que da àbb récépissé. Mhm. Mhm. noonu laa la koy waxee parce coalition yi tamit dañu am ñu àbb récépissé am ñoo xam ne mouvement la. àbb mhm. récépissé bi du leneen loo xam ne que amoon nañu proposition yu bëri mais dañu xool bi nga xam ne que tënkuñu ci ni ñuy defee suñu investiture. parce dafa am solo parce que boobu la eggee ci population yi kàddu boobu la population yi ànd ak ñun bëgg a ànd ak ñun ci élection yi ndax gox bi mel neneen. parce biir ba mu leer suñu bopp ba ñu xam ne que tey utuñu bootu ci kenn mhm. ndaxte bootu bi dafa metti dañoo ne lu ñu am jël mais ci lu ñu am jël nooñu ku ñu tàllal loxo ñu jël parce que kooku def ñu ne dama leen tàllal loxo waaye yéen a moom seen kii candidature associée la rek mhm. ñu dem ca gis nañu wàllu investiture yi dafa jur coow ci gouvernement ñu faree ci nguur gi ak ñu faree ci kujje gi dañuy tabb diw mbiicoo mbaaloo am si biir bàyyeen seen coalition bi loolee amu mënu ci am parce que loolu laa lay wax depuis le départ parce que ñun dafa am coalition yoo xam dafa am. coalition bi yéen benn candidat la am mooy yow. waaw benn candidat la am mooy loolu xam nga mhm. Mhm. dañu nekk ay mouvement fort yoo xam ne dañu nekk ci gox bi. Mhm. xam nga ku nekk namoon nga nekk candidat. am na ndaw yoo xam ne da ngay ñoom ne leen bëgg a nekk maire ñu ne ñoom tamit dañu bëgg a nekk maire. mais dañu leen xëy na amuñu moyen ñu ñu battre campagne liggéeyaguñ fi loo xam ne war nañ leen fa teg mhm. mais mais seen mouvement dañu taxaw fi ak ci kanam dem ci ay élection ñoom kenn mhm. kon ci ñooñu la ñuy dox mhm. ci ñooñu mais gis nañ coalition yu bëri dañuy am candidat ci différentes localités est-ce que c'est le cas seen coalition bi waaw loolu laay ba parce que récépissé bi tamit kooku dafa am candidat fu nekk mais ñun suñu gox ak ñu ñor dañ ko def nawetaan rek nga xam ne que ñun ñun li ñuy suñu liggéey yëpp considéré wuñu yeneen gox yi dañu ne suñu gox bi fu mu nekk ñun ñooy demal suñu bopp ñun ñooy defal suñu bopp ak nit ñi nga xam ne yaakaar nañ ne war nañoo mën a ànd dem def li liggéey bi fi war ci ci commune bi. Mhm. Mhm. ci wàllu ba tey ci élection locale yi gis nañu soxna yi femmes yi daanaka ñoom taux de représentativité bi bëri wuñ toll gis nañ benn kuréel buy wuyoo si turu kokis femme leader. ni ki dimanche bi ñu génn dañoo amaloon ab manifestation ca place de la nation ngir sàkku 10 pour cent ngir ñu am ci communes yi nekk fii ci réewum Sénégal alors yéen soxna yi lu tax yéen mënoo leen nekk maire wala mairesse wala pour ci wàllu instance de décision maanaam bërëb yi nga xam ne dañ fay jël dogal lu tax yéen ñu relégué leen au second plan lan moo sabab li ni mel manque compétence wala lan xam nga ni du manque de compétence yéen xam nga ni góor bi fi falu rek jigéen a ko fal. Mhm. parce que dañ ñoo yàgg xam nga ñu ci suñu esprit sénégalais dañ ñoo yàgg formaté. ne góor day jiitu jigéen nekk ci ginnaaw. mais loolu moo loolu moo jaadu sax. jàddootul nag <laughs> ma wax la ma ma emprunté benn expression sama benn ndaw. Mhm. la woon wóni na. Mhm. fas yéenetuñu gunge benn góor. Mhm. ndaxte lu ci ëpp ñoo koy def. doom bu ñu jud bu doom bu bu baaxee dañuy naan doomu ñëpp la. bu ma nee ñu ne doomu doomu ndeya ndey ja la. kon léegi comme ñun ndey yi ñoo ëpp responsabilité ci loolu mhm. te ñu ngi koy wane ci kër yi mhm. ñu ngi koy wane ci bureau yi ñu ngi koy wane feneen ak feneen mhm. kon léegi dañoo fas yéene goyeetuñu kenn dañu ne góor yi dañ leen fas yéene jàppale xeexuñu ak yéen dañ leen di jàppale dafa jottee ngeen may leen ñu may ngeen may ñu tuuti ñu woon leen nañuy yoree kër yi naka lañu ñu mun a gérer leneen ak leneen ak leneen boole ko ak yor kër yi te mu nekk loo xam ne dafay bénéfique donc suñu présence dafay am solo parce que jigéen boo gis tamit dafa yenn lu bëri ci kiiwam kon ki nga xam ne dafay yenn di dox dafa jot tey ñu fësal ko. Mhm. mu dem ci kanam. waxtaan bi neex na lool mais technicien bi moom may def si ñu waxtu bi njett nañu juróomi waxtu toftal na benn simili émission gox bi ñu bàyyi la nga tàggatoo ak auditeurs yi. waa bu dee amoon nga poñ bi nga xam ne bëggoon nga see àddu te laajuma la si nga tàggoo wale ko. non mooy maanaam euh, ci ci kii bi rek ci élection yi laay laay dellu si waat. Mhm. dafay dafa jot tey damay ñaax samay population damay ñaax population yëpp sax ñu def ko affaire locale mhm. parce que nee nañu discours bi il faut mu local mhm. parce que nit ki nga xam ne bu dafa koy def ci kaw andil la ko amaana xamul say réalité mhm. kon damay ñaax képp ku si nekk bu ñu bàyyee xel élection locale élection locale du élection législative du élection présidentielle donc dafay rafet ku nekk dugal ci loxoom dugal ci loxoom déglu saytu te xool ban rôle la si mën a jouer ñun ñëpp nag ñu àndandoo parce que ànd bi dafa am solo Mm-hmm. àndandoo xeex li fi nekk mm-hmm. àndandoo dem defar li fi nekk àndandoo ndax ëllëg ñi ci wax ne que ah gox bii de nii la meloon démb tey jii nag macha allah ñu bokk ci du goxu référence yi mm-hmm. ah jërëjëf merci beaucoup Abou ñoo ngi lay sant di la gërëm di la jaajëfal ci teewaay bi ci émission gox bi mu nekkoon Maria euh, Mariane Alice Gomis di urbaniste nekk candidate ci mairie bu Gueule Tapée Colobane di la souhaiter bonne chance Euh, ki fare woon ci kàddu gi Mass Thiam ci xarale gi Adama Diallo émission bi mën ngeen ko dégluwaat altine bu 19h jotee jàpp 20h ci jaajëfal faatu Baba Fall ci coordination bi ak Christiane Claire Gomis di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen jërë ngeen jëf.